da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam <laughs> kàttan bu néew la wala manqué man yu wala euh, sax jafe-jafe yi euh, gaaw a daanu seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu nga di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew. Mhm. Mm-hmm. naan président dafa recevoir koo xamante ni borom mm-hmm. mm-hmm. wax nee nañ sax Mamadou euh, wax Mamadou Gueye dafay waroon wax ki ñëw mooy kan kooku mooy président conseil européen mm. président conseil européen. loolu dulu lu ndaw deglu ma rek deglu ma rek ki fi ñew la waroon wax moy kan président conseil européen mo fi ñewon parce que dañu wax rupture kon bu soxla Basirou dana ñew togo parce que Basirou dana soxla européen yi parce que néna légui gaña gaña parce que dañu commencé am ressources yu bes yu genn kon président conseil européen bu ñewé seet ci la di ko recevoir bi ak nu mu mënti doon ak nu mën di doon parce que njitu rew la. mais yéen yéen a doon kaas naan. Ah, waaw déglu rek déglu rek intérêt sénégalais yi moko taxa jog ngor jigen ci rew mi jomay moy sen président daganuma la leen parce que république laïque la ñor carte tiaga lu tax Mame Matar gay xeexu ko ne na Sénégal tiaga moy lan ci l'islam comme moy jamra lan mo tax baar yi Mame Matar Gueye terewu ko fi Mame Matar day bu fonto Sénégalais lan moy Jamra lan moy Jamra man lol non sen groupe bobu dama sen groupe bobu dama ko reconnaître groupe banditisme bobu santas utai ay intérêt ci état nañ xam ne Macky Sall du jomay Ablaye Wade du jomay lolou du jall mam mam Matar gay day na wax sénégalais deug Macky Sall recevoir na ko en 2018 Mame Matar Gueye Mame Matar Gueye recevoir na ko en 2018 moo nekkoon premier ministre Belge lu taxan boobu def euh, Macky Sall recevoir na ko Macky Sall en 2018 recevoir na ko te moo nekkoon premier ministre Belge lan moo tax moo defut conférence de presse leeral sénégalais ah benn Salma buuru buuru màkk bi recevoir na ko lan moo tax boobu génnul leeral sénégalais rangu mim don xex rangu ko gën parce que rangu lim nek nekk nëbbutuwu ci daa feeñ pambay ngor jigen mo gën mam Matar gay parce que nëbbutuwu du na feq mam Matar gay du nitu dara lolou du jall réew mi dafa sensé en 2024 lañ nek lolou du jall mais Thierry yeen bokku nañ ci ñu don xex naan ay man sal day day réaliser góor jigen non dina ci ñew dina ci ñew lolou suñ ko bëggee amna fuñ koy jaarale ngor jigen dinañ ko interdit Sénégal mais pour la le moment no ñëk ci defar réew mi. bu ñuy recevoir duñ recevoir n'importe qui ay boromi xam ay kàngam yuñ mën a jëflante diggante réew réew kooku lañu recevoir ki ñu du gone Mamadou Gueye na li muy def nii du jàll na delluwaat ginnaaw hypocrite la duma ci am dara parce que li may ay feel la lan moo tax lan moo tax néewut xeexut caga ci réew mi lan moo tax baari sàngara yi teewul te lislaam da tere waxut dëgg maam Matar Gueye wax man du ma làmbatu wala may gaaral nit man damay jaar ci turam na ko conférence de presse boo mu def moom mbale la ba mu pare lañ ko sànni ca poubelle ba dégluwuñ ko laaj ñu xalaatam bi Macky Sall jël di di yabal ay police ñu tiire ay bal ci kaw askan wi ana maam bi ñu tëj jàkka yi ana maam Matar di sàcc xaalis di di euh, euh, askan wi Covid bi ana maam Matar Gueye askan wi dégluwuñ leen gis nga ñoom pomme de terre yu nëpp lañ dañ leen a war a sepp sàmm kenn dégloo te réew mi ñu fi kàddu micro yoom rek ñuy wax. mais ñoñu ay rangu ay pambe ngor jigen mo len gën xam nga tax ñoom lañ nekk dañ ko fessel mom bukk bu sango dëri boy la bu fonto sénégalais yi sama sama Sama-sama ne dañ ko ñëw mooy que pourquoi yéen ngeen ko doon xeex démb tey ngeen bëgg ko nangu loolu man moo de ba ma de ma de ki ñu recevoir bi dung ko recevoir du ñëw fi ngir ngóor jigen dañoo wax partenariat pour européen ku bëgg wax ku bëgg wax ak Europe di ko recevoir te kenn mënut a tëj sam réew ken mënut a sëñ doo wax kan ñëw na fi ñaar Macky Sall dajara ak moom trois fois mosuñu ko kaas ñun ben patriote bu dama na waaw dëgg la. dañoo dugal projet de loi mu génn ko moo tax ñu nangu ne da ko bëgg a légaliser ba pare dugal ko ci école di ko jàngale ay ay professeur génn di ko dénoncé li ma la wax nii ay preuve appui la loolu la ñu wax. kon ko voté. incha allah wa APR ñoo fa ëppale bu ñu ko jàllalee loi bi dina jàll ci kàttanu borom bi loolu ko. man cee ma déggoo li ma la wax maam matarge day naa fekk bëgg a jaaxal xelu waaw dama la gis nga gis nga ñi yuuxu ñi ñëpp dañoo bëgg a jaaxal sa xelu sénégalais yi ñun xam nañ li ñuy def bu baax ñii ñu fal wóolu leen dénk leen ñun teguñu leen pression corrigé wuñ leen laaj ñu leen dara xam nga lañ leen bëgg a laaj bu mandat bi jeexee ñun ñu xool seen bilan bu ñu doyee ñu fal leen bu ñu doyee ñu seetaat leneen waaw mais ñii doo gis doo bu leen ko bu leen bu leen critiquer parce que tooguñ ba bañ leen di critiquer. Sénégalais yi nee nañ yéen ñoom lu ñu def rek neex na leen parce que ànd na seen sago si si. te ànd na ànd na suñu sago dañoo gën ñi fi nekkoon dañ am yaakaar ci ñoom. dañoo gën ñi fi nekkoon ki fi nekkoon. dix jours la def wàññi mburu mi. waaw léegi dara wàññeeku ko. waaw ah, ki fi nekkoon fexe na ba dem nekk fi ba jóge fi juste légaliser góor jigéen comme ni ngeen ko doon waxee. waaw yéen pour man. ni ngeen doon waxee doo leen laala wala taqe koo xamante ne ngay tuddee sax borom ñaari tur xam nga ki fi nekkoon da doon taf yëngal da doon suul bukki sulu bukki ñun dañoo bëgg lu concret buñ jëlee mesure ne lii la su boobaa loolu day continuité moo tax faaw ñu def ndànk kooku 18 jours la toog wàññi mburu ay tappalee ci newoon ba pare fenn sénégalais am lu nëbb sénégalais ñi nekkuñ ci loolu dañuy jël seen taal étudier lan la mbir mi soo ko soo ko soo ko soo mi ndax mbulaasere bi ak koy importer lan ban choona nga lañuy am ñoo wala ñoom ban revenu wala ban ban bénéfice la ñuy am ñoom loolu dañ koy chambar ba paré tok waxtaan ak ñoom. ban solution bi nga doon wax nekkul ci am ngeen livre solution ke war ubbi pass comme ni ko gaay waaw livre bi nak naa étape par étape la wa mais livre bi pass ubi pass kay dafa jafe dé ubi pass yo mëna mais acte xam nga légui ni ba bala ba bëggoon tay nga ji légui légui di nga jël ndox sotti bam toy bo boo bam toy nga doora gas jëmbat

na ci lañ ko mais dinañ jubbanti eh, réew mi non non lool lool loolu moom doo génne fu ko wax doo génne vidéo doo génne doo génne audio waaw tàmbali nag dëggoo nañ tàmbali nañ kay li leer laa la wax ah, barke li réew dana sansé de Sénégal dinañ taxone gonga ñi ngi door jox réew ay nit a koy door ñu koy ron duñ ay nit. mais yow kon nan nga lay lay ni waji fi ñewon param ñaar toog gis na ben photo mu sol jupe. waaw dama ne la biñ fi ñew Europe la Union européenne Europe la fi ñewal moy président conseil technique mom Europe la fi ñewal ñew fi en tant que membre ñew ñew fi pour affaire LGBT indi fi bopam da fay ñew pour ay pour waxtan si xool si nguur gu bes gi nan lay doxalee Europe. lañ wax nag ak la ñu doxal loolu ñoom joomaay xam nañ ko ñoom joomaay duñ ay gone de ta duñ nax sénégalais yi de pambay na ñëw ba xam nañ ko recevoir ci pale bi pambay na ñëw ba xam dinañ ko recevoir ci palais bi non man waaruguñ ma waar ma yóbbu non non waar yombut ah. waar ma yombut parce que doo hmm. damaa waxewut ñu may fay ah. waxuma ngir dara jaal nit waxuma ngir dara damaa wax dëgg man li ma wax nii ay acte la yu fi nekk. waaw mais d'accord naa la fi nekk mais man damaa jàpp ni tey mën nañ jël vidéo bi ni moom la président Ousmane Sonko wala keneen waxoon sa wax ni ngóor jigéen dañ koy légaliser. non mais dafa am ay phrase yu ko teg moom mooy ci ay acte lañ ko teg. président lu mu wax ci acte lañ ko teg. Hmm. Macky Sall jéego yi muy teg. Hmm. maanaam Macky Sall li muy wax ak jéego yi muy teg bokkut loolu la waxoon ak recevoir bi muy dama ne la. léegi pour déglu li ma la wax déglu déglu li ma la wax. demal génn ba xam bi mu ko recevoir ndax ndax ngi dégg Ousmane Sonko wax dana acte yi Macky Sall yi def ak li muy def soo bokk mi ngi dooleel ngóor jigéen suuf loolu ay professeur ñoo génn wax ko ne jox nañ leen programme bi ñu defoon ay séminaire euh, fële ca euh, euh, Mbour. loolu Sénégalais yi dégg nañ ko ba pare ñu jël loi bi defar ko am njëkk yóbbu assemblée ñu ne loi bi na génn. loolu ay acte la li ma wax nii ay acte yu ay acte posé la yoo xam dañ ko wone ci réew mi do doo amul nekk di commentaire wala nga xool. lii lu ñuy wax waaw incha allah xam naa ne moom lii man man duma ko d'accord quoi d'accord mo dama ne la ki ñu recevoir hmm. da ngay laajte kan la ba paré non ñepp xam nañ kan la. Ah. ci limu nek nonu dafa nekkat leneen loo xamante ni. waaw koy koku Europe bi fi ñew bi mi départ di ñew i ñew Europe xol Europe ni mu toll Europe. Dunia ne France de waa déglu rek non non non non non bokkul de looloo tax may la Mame Matar Gueye la ma tudd ko naafiq lii mu dafa war a Sénégalais ki Bassirou Diomaye Faye recevoir kan la daf ko war a sénégalais ñu xam ko recevoirul ngóor jigéen waa Pambay Pambay du sénégalais ah ya Pambay na demande recevoir ba xam dina dugg ca pale ba ñu recevoir ko euh, dama ne la dañ du leer na basiru bu amé partenaire du dem du dem tok ak président Hollande ba fa né te ka fa dagalon ngor jigen du ko am tok ak ñom waxtaan réew mi mo toll fof Sénégal mo toll fo ni sa intérêt personne réew mom ngay défendre gën di jëflanteeg nit nak ña ngay jëflantel ay naan duma jëflanté ki ki ngor jigen lol nangam mais ñun yor ñu république islamique ngor jigen xana xamoo ngor jigen amna droit dundu Sénégal fi ne coolee fi nekk rek mais dañ na kenn ku nekk sañ nga dund sa diine nam la neexe ngóor jigéen bi jóg ne man ngóor jigéen laa am na droit dund Sénégal dañoo waxul sénégalais yi dëgg mais suñ constitution bi am na droit ngóor jigéen dund fi légalement dafa na yow mii sax yow mii sax boo doon sëy fee ci nit bu ma la ko maanaam nit bu doon sëy ci mbedd mi jàpp parce que loolu dañ tere mais boo duggee la ngay def sëb néeg ndool yoonu yoonu kii nekku ci ngor diga amna droit du senegal nañ nañ bàyyi nax senegalay lol buñ ko bëggee nañ def loi bi ba mu jekk ñu yóbbaar ko assemblée nationale wala ñu dindi ñe ñe ñu am fa majorité ba ba loi bi ñoo bam dañ ko jàllale nga xam ba xam nga léegi mbir mi leer déggoo li nañ ñu jox assemblée ñoo fa majorité bañ duggal loi bi du am du am ay débat ni day ñëw sax wata ko mu jall lu leer la la wallahi alazim da nga am problème ci sa bir négocier mo xam <laughs> kattan bu neew la wala manqué man yu wala euh, sax jafe-jafe yi euh, gaaw a daanu seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.